ñu ngi koy nuyu di ko ziara waaye di nuyu mboolem asatise yi ak mboolem sang yi ci kër gi di fas yéene ànd ak ci darsu ñaareel ci arbain nawawi nga xam ne dañ koy ooye maratibu diin te nga xam ne ñett yu am solo yooyu moo ci aju muy lu jëm ci lislaam lu jëm ci imaan ak lu jëm ci ihsaan ki riwaaye woon xadis bu njëkk bi wala ki nga xam ne moo ñu ko jottali woon jëlee ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam muy amiril muminin mooy ki nga xam ne mooy ki ñu ko jàngalaat xam naa nag dañuy ñaan ngànt ci liir nas bi jéem ko firi àndale ko ak baat yi ndax dañoo génn te fi nekk réseau bi dafa xaw a ñàkk doole te bu audio bi guddee itam mën naa am dana jafe pour mu ñëw te bëgg nañ am nañ yéene joxe dars bi incha allahu tabaraka wa taala te xadis bi mooy xadisu ñaareel ci arbain nawawi an omar ibn alxataab radiallahu anhu aydan jëlee nañ ci omar yàlla na ko yàlla gërëm ba tey xaala wax na moom sayidna omar ne baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin Seydina Omar mooy li mu ne ñoom dañoo toog ñoom saxaaba yi dañoo toog benn bés ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zaata na istala alayna rajulun shadidu bayadi siyaab bañ toogee benn bés ci ron yonent bi sallallahu alayhi benn góor daal na tëll ak tataayu weexaayu ay yéreem waaye itam ak tataayu ñuulaayu karawam sadidu sawaadi saari laa yura alay asaru safar mu ne gisuñ ci moom itam jeexantal maay tukki xataa jël sa ila nabi sallallahu alayhi bam toog ci ron yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ci kanam yonent bi sallallahu alayhi ba bam toogee itam fas nadda rukbatayhi ala rukbatayhi dafa jël ñaari oomam sukk ko ci oomi yonent bi sallallahu ووضع كفيه مداري تك نياري تنقم على فخذيه تي نياري لبهم لان لا واخ من واجو وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام يا محمد جانجل ما خمال ما وخال ما ليرال ما لان موي الإسلام يننتو تانتو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يننتو نكو الإسلام بوكو خمو موي أن تشهد أن لا إله إلا الله nga seede dëggal ne amul benn buuru amul benn borom bu ñu war a jaamu lu dul yàlla tabaraka wa taala dàq ak saxal la bàyyi daana wax ne laa ilaha la dàq la ak saxal lan la dàq mooy leneen lu dul yàlla lan la saxal mooy yàlla kese wa anna muhammadan nga seede ne muhammad rasulullahi mooy yonente bi yàlla seede ci sa xol dëggal itam ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ki ko emu ci mu ne wa tuqimu salaat ngay taxawal julli julli dafay julli bàyyi daana wax ne julli ci doomu aadama nu mel daf koy misaal mu ne bopp la ci jëmm mu ne bopp gën a tuuti ci jëmm waaye bu dagg borom dee mu ne olof daal gàttal na ko olof daal jullit jullit daal jullit la koy ooyee ku dul julli moom nekk jullit wa tuuti zakaata ngay joxe azaka azaka naka noonu itam yàlla moo ko sant yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na ko jël xuz min amwalihim sadaqatan ngay joxe azaka wa tasum ramadaana ngay oor weeru koor fa man shahida minkum shahra falyasumhu képp koo xam ne fekkee nga teru teg weeru koor te mota oor takaalif yi war ci yow dara manki wut kon war na ci yow nga oor wa taxajul bayta ngay aj néegab yàlla bi waaye kañ in istataata boo ko attanee kon ki ko munut kon wàcc na ko ilayi sabilan benn yoon rek la war nit ki ci dundam waaye nag bu demaatee itam mu nekk ay naafila ñeel ko xaala wax na ma waa ji ne ko saddaqta wax nga dëgg fa ajib naa lahu li ñuy yéem ci moom kii laaj yonent bi yasaluhu dafay laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa koy dëggal dafay laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yonentu tontoo mu ne ko wax nga dëgg xaala mu ne ko faxbir nii xibaar ma faxbir nii jàngal ma biir nii leeralal ma anil imaan yi ci gëm lan lañ lan mooy gëm lan lañu war a gëm xaala wax na moom yonentu ne ko an tuumina mooy nga gëm billaay ci yàlla ngay gëm yàlla gëm yàlla goo xam ne duñ ko rax dangay gëm yàlla kese doo ko bokkaaleek dara wa malaaykati yi nga gëm ay malaakaam ne ñoom ay mbindeef lañ yoo xam ne yàlla moo leen bind ñu tukkee ci leer duñ mooy yàlla li leen yàlla digal rek lañuy def wa kutubi yi nga gëm itam ay téereem tawraat injil zabur furqaan ne ci yàlla la jóge yonent yi ko wàcce itam lañ ci santaane ak lañ wax ci téer yooyu yëpp nga nangu ko téer yooyu yëpp nag yàlla ndaxañ na ko ci alquran kon soo gëmee alquran ci jamono ji gëm nga téer yëpp wa rusulihi ak i yonentam yi ñu ngi tàmbale ko ci yonent yàlla nuuhan alayhi salaam ak mboolem yonent yi nga xam ne ñëw nañ ci gannaawam ba ci yonent yàlla muhammad soo gëmee benn yonent te gëmoo keneen ko kon sa gëm yàlla matut waaye itam nga gëm ne ñoom lépp lu wax du seen waxi bopp yàlla moo leen ko waxloo nga dëggal leen ci liñ la jottalil jëlee ko ci borom bi tabaraka wa taala wal yawmil axiri ak bés penc nga xam ne mooy bésab pay ba yowmul jaza yowmul taxaabun yowmul zinati yowmul hawli nga xam ne bari na tur lool te arab yi dañuy wax ne inna kasratal asma tadullu ala sharafil musamma bërig tur dafay tegtale tedd ak la ñuy tudd wala bu fekkee ragal nañ mbir danañ koy ooyee tur yu bari comme ni gaynde baree tur waaye nag bës boobu itam nga xam ne mooy yà mooy bés ba yàlla day wax ne yowma laa yanfau maalun wala banuna illa man atallah bi qalbin salim ñu jéema waajal bës boobu dikkal ak suñ boroom ak xol boo xam ne xol bu laab la wa na nga gëm itam bil qadri ci dogal yi nga gëm dogal yi dogal yu neex yi wa sharrihi ak dogal yu naqadi bu bànneex ñëwee gëmal te nangul waaye bu safaani bànneex ñëwee itam gëmal te nga nangu bu dee dund amee santal yàlla bu dee amee itam santal yàlla bu wér amee santal yàlla bu feebar amee santal yàlla ñaar yépp jaam bi daf ko war a nangu te ku weddiwut la nga waxoon ñu bari ci ñun jàngoon nañ wa bi jami ma jaari ahkaami kër bu fekkee xalimbaak yàlla gi lépp lu mu dogal gërëm nañ ko kon euh, dañuy delluwaat rek ci li sëriñ bi waxoon ida ak aqdaaru min malikil muluk fa siyaanu indi maa yubki wa maa yusri xaala wax na mu waaji ne ko saddaqta wax nga dëgg de xaala mu ne fax bir nii xibaar ma fax bir nii jàngal ma fax bir nii xamal ma fax bir nii leeralal ma فاخبرني خبار ما فاخبرني جنجل ما فاخبرني لا ما بلا عن الإحسان كالإحسان الإحسان لن ما الإحسان قال وحنا ما ميرون أن تعبد ما إنك جامو الله يالا كأنك دانك يورك تراه يانك يجس فإن لم تكن بونك تراه ديكو جسم يالا فإنه نكو يالا يراك من لجس وقت جبرينك أمنا كي لولو سنسرين suñu baay suñu royukaay Cheikh Ibrahim Mahmoud Niass al maaruf bi Baay Tuuti ci bi muy leeral diggante Muusa ak borom bi ca montagne ba wax yu bari mu indi ci ay leeral yu màgg yu rafet waaye ci xam-xamam bu sell boobu yóbbu nañu ba gëstu nañ xool nañ al jëbalu bi yàlla waxoon wala jëbal bi yàlla waxoon yonent yàlla Muusa ne ko xool ko boo jëlee nga xisaab al jëbalu daf lay jox allahu muy 66 alif ak laam ak jiim ak baa ak laam ñaari laam yi 60 la nga jël baa muy 2 nga jël alif muy 3 soo ko bolante mu jox la 66 kon kay montagne dafay tolloo ak allahu ñu taalibi bàyyi war nañoo gën a xoolaat loolu bu baax a baax ndax ñenn ñiy weddi bëri na te loolu dars la boo xam ne ñun ñëpp war nañ koo mokkal yàlla nag tabaraka wa taala duñ ko gis ci ay bëti yu feeñ yi laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar dangay jeexal sa bopp amal yàlla kese kaana allahu wala shay'a maahu ba ko yonenti waxee seydina ali daf ne ko wa huwa xatalaana ala ma alay kaana nam nekkee woon te nekku fi ak dara noonu la nekkee ba léegi kon kay fa innahu naka moom yàlla yaraaka mu ngi gis maam sëriñ bay mu ne fa in lam tëkku rek tara boo fi nekku rek gis nga yàlla yow nag bu fekkee ne danga fi am baay am yaay am leneen ak leneen am nga bëgg ne danga xam walla danga nga ràññee dafay jafe xaala wax na moom yonent ne ko wala moom waa ji ne ko faax bir ni xibaar ma jàngal ma waxal ma leeralal ma ani saati ci bés penc bés penc mooy lan yonent tontu ko ne xaala wax na ne moom yonent bi mal masulu déet aji laaj ji an ci bés fenc mal masulu déet aj ki déet kiñ koy laaj an ci moom euh, afwan mal masulu déet aji laaj ji an ci bés fenc bi aalama mu gën a xam mina saa'ili ci kim koy laaj maanaam kiñ koy laaj ki koy laaj gënu koo xam ki nga xam ne moo koy laaj yaa ngi ma koy laaj man yonant bi waaye yow moo koy laaj man yonent gënu ma la koo xam mal masulu déet aji laaj ji an haa ci bés fenc bi aalam mu gën a xam mina saayili ci aji laaj xaala wax na moom waa ji ne ko kon kay fax bir nii xibaar ma jàngal ma an amaaraatiyaa ci ay màndargam bés feñ ci kay bu nammee ñëw war na am ay màndarga màndargaay bés feñ ci lan ak lan la yonentu tontu ko ne ko xaala an amata rabbataha mooy boo gisee jéebéer jur sangam waan taral al urraata way rafle ñi al aalata ña way dégg nga ñàkk ay dàll yuñ sol wala al buñ ko waxee mooy jamu aafin la wa huwa man laa la fi rijlayhi mooy koo xam ne amul dàll mooy xufaat mooy way fàndaañu al urraat buñ ko waxee jamu aarin mu ngi nekk wa huwa man laa siyaaba ala jasadihi mooy koo xam ne jëmmam ji amut maanaam mbalaan yum ci teg alaalata nag jamu aailin wa huwa alfaqir mooy koo xam dafa ñàkk yetataawaluuna fi lbunyaan wala riaay chat ñu nekk jamu raain wa huwa alxaafid mooy sàmmkat yi gàtt mooy ñi nga xam ne ñooy wattu gàtt yi ba du ba du sànku kon moo moo tax bi bi mu laajee yonent bi màndarga yi moo ko ko riaay chat ñi di way sàmm gàtt ya ba duñ sànku yetataawaluuna ñu di way guddalante mooy ñuy sutalante في البنيان كي طبخ أي لنكنام ويبنون أبنية عالية ñuy dem bay tabax tabax yoo xam ne yu rëy lañ waaye amu ci rëy rek tafaaquran ngi rek puukarewu wariyaan ak ak ngistal loolu mooy yetataawlu na fil bunyaan dañuy guddalante tabax waaye ngistal ak te nga puukare rek moo tax gannaaw ga nag su man talaxa topp mu boy fa labistuma sax maliyan benn diir su ma kaala topp mu wax moom yonante ne yaa omaru ee eh, yow Seydina Omar eh, tëdiri ndax xam nga mani sail kan mooy ki doon laaj qultu ma ne ko man Omar allahu yàlla de wa rasuluhu ak yonentam aalam ñooy aji xam yàlla kab yonentam ñoo xam eh, qaala wax na moom yonentu ne fa innahu naka moom ki fi ñëwoon di ma laaj maratibu diin jibrilu jibril la ataakum moo leen dikkaloon yu allimukum di leen xamal diinukum seen diine moo tax xadis bi dañ koy ooyee maanaa maratibu diin nga xam ne lépp lu aju ci diine ji xadis bi làmboo na ko xam nga bi mu njëkkee ñëw da ko laaj na ko faxbir nii anil anil anil islaam xamal ma lan mooy lislaam ay axbir nii an xaqiqatihi maanaa dëgg yi nga xam ne moo aju ci charia waaye ñëw na ne ko wa an tumina billahi imaan buñ waxee ci luga موي التصديق موي دقل والجزم اك في القلب تقول وشرع عندي شرع تصديق بما ذكر في الحديث موي دقل لب لو خمنا تدو ننكو تي حديث بي أه بو تم تي بنان معنا دنگا فك الاسلام تي لغة موي الانقياد والاستسلام لله تعالى وهو شرعا قائم على اسس القمص الاسلام بو نكو واخي تي لغة موي اموتو اك جيبلو نيال يالله تبارك وتعالى suñ ko waxee ci chara nag mooy nga taxaw ci mboolem ponkam yi comme ponk lislaam yi juróom dégg nga eh, ak ya ci aju waxuwa al imaanu mooy gëm imaanu wax nañ la mooy mooy dëggal ak dogu ci chara mooy nga dogu ne yàlla rek mooy yàlla te mooy aji bind te moom yàlla tabaraka wa taala waruñ ko bokkaaleeg dara ixsaan nag buñ ko waxee mooy sellal dëppoo goo xam ne wala ittifaaqu ak dëppoo dégg nga ah, ay ataqallus fi fi ibadatillah mooy sellal ci li ngay jaamu jaamu yàlla gi ngay jaamu moom dong ànd ak nag xereñee ak motal dégg nga xeedu yàlla ci sa bépp waxtu ci bépp jaamu yàlla boo xam ne yaa ngi koy jaamu nga fàttaliku itam ne yàlla moom mu ngi nekk ak yow mu ngi lay gis fépp foo mën a nekk lu ndaw loo def ak lu mag loo def loolu moom lañ tënkee ci xadis bi di ànd ak jéggalu ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp itam di wax ne yàlla yàlla nekk suñu wettal waaye yàlla na yàlla jotale ñu suñuy càkkuteef yu zahir ak yu baatin ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen mbokk seen xarit Aboubacar Maaz Niass wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu